jàngeen jëf mbokk yi di rafetlu seen ànd ak euh, seen chaîne euh, seen télévision euh, Sénégal 7 votre chaîne d'information leader temps pour moi Sénégal 7 TV di am mbégte di janoog yéen justement ngir waxtaanee lu soxal réew mi xam ngeen ne tey nag 4 juin 2024 la ñuy amal fee ci assemblée ci Diamniadio temps pour moi lii di ndaje dialogue national pour def li nga xamante ne moom mooy restitution li tukkee ci waxtaan boobu nga xamante ne mu ngi tàmbali depuis le 28 mais bii ñu jógee le 17 juin prochain ñu war a jébal ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi le président de la république Bassirou Diomaye Faye li nga xamante ne moom mooy conclusion yi mu am lu bëri nag lu ca tukkee mais laata également ñuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy conclusion yi tukkee ci wala boog recommandation yi ci tukkee ci dialogue national boobu également am na yeneen ponk yoo xam ne war nañ ci waxtaan lu jëm ci décision yi nga xamante ne moom la nguur gu bees bi en tout cas le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye njëkk a jël jëm ci wàllum foncier bi la publication des rapport des corps de contrôle waaye également promesse yi nga xamante ne defoon nañ ko jëm ci wàllu dund gi loolu yëpp nag nañ ci waxtaan fas ne ci ànd ak sunu ñaari gan ñuy dalal tey kenn ki fare ca coalition Benno Bokk Yaakaar di njiital njaaj Njaaj Deen Keben su ma <laughs> noonu la. Njaaj Deen Keben. Njaaj Deen Keben maa ngi lay nuyu ki nga xamante ne moom mooy euh, moom moo fi teewal la coalition Benno Bokk Yaakaar Cheikh Ahmed Tidiane Kandé léegi yow Kandé maa ngi lay nuyu. waaw Ibrahima Thior maa ngi lay jaajëfal yow ku xam nga parce que a eu à travailler ensemble. Mhm. Euh, tu es toujours le professionnel que tu mhm. euh, dans un Sénégal divisé à tout point de vue par la politique. Mhm. tey boo gisee. ci panelu journalistes yi xam nga werante bi fa am. Mm-hmm. Ah, ñi farfee ñi farfee ñenn ñi ñu leen di reprocher ñàkk équilibre. Mm-hmm. ci traitement bi nga xam ne moom la ñuy amal euh, ci actualité nationale ak yi nga xam ne surtout dafay toucher politique. Mm-hmm. Euh, mu doon loo xam ne quand même góor góorlu nga ba resté le journaliste la boo xam ne moom lañ soxla. parce que dans la presse on a besoin d'équidistance mhm. pour un traitement parfait de l'information mhm. sans parti pris e ñu lay ñaanal rek yàlla na yàlla en tout cas dolli laa taxaw yàlla gën a jàmmal réew mi parce que Sénégal quand moom la ñu am bu Sénégal amul jàmm man ak yow duñu fi toog bu Sénégal amul jàmm duñu ko waxtaanee ndax kenn ku nekk da ngay tal sa bopp. Euh, yàlla na jàmm yàgg ci réew mi may nuyu sama co-débatteur bi di Mayoro Ndaw moom it j'ai constaté que c'est déjà un jeune et c'est un plaisir de discuter surtout avec les jeunes yi nga xam ne l'avenir les incombe mhm. parce que Sénégal tey keneen mënu ko defar lu dul ay ndawam euh, donc euh, ñu koy ñaanal rek moom i taw féex ma yaakaar ne mhm. bu ñu fi jógee ci waxtaan wi dina doon loo xam ne dinañu amal njëriñ ñun suñu bopp mhm. amal njëriñ Sunugal 24 Euh, mm-hmm. Sénégal 7 Sénégal 7 waay amal njëriñ tamit euh, en tout cas Sénégal ci mm-hmm. boppam ak askanu réew mi mm-hmm. jërë ngeen jëf très bien à ma droite euh, defe naa Mayoro Ndaw lay wuyoo di jeune activiste nekk également membre de la coalition Diomaye président Mayoro maa ngi lay nuyu di la dalal encore une fois ci Sénégal 7 jërëjëf sëñ Thior maa ngi lay nuyu di nuyu waa télé bi yëpp di nuyu également sama coordinateur bi sëñ Kandé vraiment di am plaisir dajeek ñu mel ne ñoom parce que <laughs> seede yu rafet yi ñu def ci moom c'est vrai que maa ngi koy suivre de temps en temps mooy nit ku yàlla may xam-xam aussi tamit. Mm-hmm. Kande <laughs> Kande te aussi ñu nangul ko ko. Mm-hmm. di ñaan émission bi yàlla buñ ci wax lu ñeexee bi mm-hmm. suñu borom musul ñu ñëpp ci accident wala miñ lépp lu ñu fas yéene waxtaan yàlla nekk loo xam ne njëriñ lay nekk ci Sénégal alors très bien ma yoro ci yow lay tàmbalee euh, wax naa ko sànq ci ndorteel ci présentation bi ci liy xew actuellement sa Diamniadio muy euh, restitution recommandation yu tukkee ci dialogue national bi euh, bu ñu neexee sax ñu nag les assises de la justice comme noonu lañ ko tuddee mooy la quatrième fois donc euh, ñuy amal dialogue national ci mim réew cette année ci nag ñu axé ko principalement sur la justice justice ku ne xam na ne bëri na contre coup yi dal ci kawam ces dernières années là euh, rawatina li ko dalee 2021 ba 2024 ci xibaar yi ñu jot en tout cas ci li gën a fës ci recommandation yi ñu def bokk na ci conseil supérieur de la magistrature bi nga xamante ne nee nañ blocage Euh, lu toll si ñaari groupe euh, dessiné wu ci benn groupe bu nangu ne bu jàpp ne euh, le président de la république mi nga xamante ne moom mooy jiite le conseil supérieur de la magistrature ak le ministre de la justice a des ci kuréel boobu am beneen groupe boo xam ne jàpp na ne rek lii di président ou di président la république ak le de la justice waratuñu jiite le conseil supérieur de la magistrature am troisième groupe jàpp ne rek dañu war a ubbi le conseil supérieur de la magistrature yaatal ko ba nga xamante ne ñeneen dinañ ci ñëw dugg si fekk ci le président de la république ak magistrat yi waaye tamit respecter li nga xamante ne moom mooy le principe de la parité maanaam magistrat yi nga xamante ne ñoom la président de la république di tab nommé leen war nañu yemoog wala boog ñu tolloog magistrat yi nga xamante ne euh, par élection la ñuy duggee ci kuréel boobu bokk na également ci décision yi naam mënuñoo lim lépp mais ñu lim ñaar yooyu nga xamante ne bokk na ci gën a fës mooy le fait que ñu war a wàññi doole kii di procureur bi nga xamante ne bu nit waxee wala mu def lu mu def am na droit possibilité wala pouvoir su fekkee mën nañ ko waxee noonu daal di la woolu déglu la waaye it yóbbu la mandat de dépôt mandat de dépôt boo xam ne nag mën na tabee également ci li nga xam ne moom mooy les longues détentions préventives mais en tout état de cause dialogue baa ngi noonu le 17 juin prochain la ñu war a euh, nga xamante ne moom mooy le rapport général au président de la république ban jàngat nga am ci euh, les assises de la justice bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi rendre li nga xamante ne moom mooy les recommandations Euh, partielle la fa nga xamante moom mooy jëm ñaajo waaw jërëjëf sëñ Thior donc euh, man li may def mooy gërëm son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son mm. premier ministre ci initiative bi ñu parce que euh, sëñ Kande léegi mu ngi koy wax Sénégal dañ génn ci ay guddi jaxasoo te loolu lépp mën nañ ne li ko sooke injustice la donc boo bu ko yàlla defee mu ñëw tey di njiit réew mm-hmm. ñu jox comme réew décision ba mu jël la gën a fës woo ci askanam pour ñu waxtaan ci muy naka la ñuy yeesale justice parce que man mun naa ne justice dafa am beneen bët bu ñu ko doon xoolee sénégal yi tolloon nañ ci guddi yoo xam ne seen yaakaar wàññeeku woon na lool ci justice ndax lan dañ gisoon ne justice bi fi nekkoon dafa taxawoon ak nguur gi ba mopp donc nag bu fekkee dañ jël initiative yu ni mel ne dañ bëgg a waxtaanewaat ko. waaye nag dafa am benn baat bu ma ci neex muy baatu indépendance. Mhm. justice dafa war am indépendance. Mhm. man ñetti décision yëpp lenn rek laa ci wax euh, buñ ci man di jël. Mhm. na justice am indépendance. mais est-ce que Mayoro justice mën na am indépendance su fekkee ni ku jiite ki jiite le conseil supérieur de la magistrature di président de la république. Euh, mu ngi fa ba léegi ci conseil supérieur de la magistrature ànd ceeg ki nga xamante ne moom mooy le ministre de la justice di vice président ñu koy jiite di jiite ay magistrats est ce que mën nañu wax ne mën nañ ci sukkandiku ba jàpp ne indépendance de la justice mën na am. waaw xam nga man li tax ma jàpp ne indépendance de la justice dina am te yàqin laa ci am mënoo jël ku mel ne Serigne Ousmane Diagne. Mm-hmm. dama ko faral di wax Ousmane Diagne kànd bi moo ko ëpp mu demoon élection ak Kande Kande da koy gañe ci wàllu mbooloo bu dee ci mbooloo kese lañ koy teg te bokk na ci liñ koy bàkkee ci réew mi témoignage yu ñuy am ci réew mi mooy euh, magistrat la boo xam ne mosul dox ci bëgg-bëgg nguur moom day def rek liggéeyam te yàlla buur bi rek tax donc doomu aadama nag Ousmane Sonko dafa am lu ñuy wax dana ñu nit ñaar rek nga koy jàppee ñu jàngal mooy discours am ak parcours bu fekkee parcours boobu dañ ko gis ci ministre de la justice sénégalais yëpp seedeel ko loolu wala ñi ëpp ci sénégalais seedeel ko loolu bokk moom mu jëlaat ku mel noonu tabb ko man yaakaar naa politique taxul bu doon politique moo tax dama naan danger la ci moom mais bu fekkee rupture la ñu nga jël un juge indépendant bi ñu koy woowee nga jox ko justice kon yaakaar naa buñ ne indépendance justice loolu xel yëpp mën nañ koo nangu. en tout cas bokk na ci li ngeen diggee woon su ma nee li ngeen diggee woon mooy li président Bassirou Diomaye Diakhar Faye diggee woon que ni bu jëlee réew mi dina def le tout pour séparation euh, des pouvoirs am de manière intrinsèque jaaree ko ci le fait que le président de la république waratul jiite le conseil supérieur de la magistrature est-ce que jàppoo ne ci bu ñu sukkandikoo ci recommandation yi jot a def nii euh, di ngeen jox opposition actuelle bi bant bu ñu leen dóoree wala yat bu leen dóoree. xam nga recommandation bi il faut ñu xam ñan ngeen ñoo ko def il faut nit ñi xam ñan ak ñan ñoo def recommandation yi je me euh, bii ñuy suivre fan yi Sénégal moo fa daje waaw ñi fa gën a néew mooy ñi far ci pouvoir donc nag bu fekkee mbiru réew la nga jël ko joxat ko waa réew ah ñoom ñu tënkal la sëñ bi man da jàpp naa ne lañu ñu tënk dañ ko war a doxal alors euh, dinaa ñëwaat ci yow Cheikh Ahmed Tidiane Kandé defe naa dégg nga li fi jot a wax ci li nga xamante ne moom moo tukkee ci recommandation yi ñu jot a fësal ca Diamniadio ci li nga xamante ne notamment moo concerne le conseil supérieur de la magistrature mu mel ni ñetti groupe ñoom ñoo dessiné wu ci ay position yoo xam ne fësal nañ ko groupe bu bëgg le président de la république ak euh, le garde des sceaux des ci biir conseil supérieur de la magistrature beneen groupe bu jàpp ne ñooñu waratuñ fa nekk ak ñetteelu groupe bu jàpp ne war a yaatal alors euh, ban jàngat nga am ci euh, recommandation yoo nga ne commencé nañ ko def ci assise de la justice waaw déjà sur euh, les assises de la justice man ci laay ñëw ci porté bi. Mhm. ndax est-ce que nécessité la par rapport à la marche actuelle du pays walla du nécessité. Mhm. est-ce que déjà justice doon na priorité ci lu sénégalais yi xaar ci équipe bu bees bi nga xam ne ñoom ñoo wuuti ñu fi nekkoon euh, bu nekkul tamit priorité lan moo tax. Euh, xam nga justice man j'ai dit que si ça dans le sens di dooleel justice ñu am seen indépendance ñu koy appliquer ci respecter li nga xam ne moo fi nekk ci ay tex mais ñun ñëpp dañ koy saluer parce que réew du lu ñuy foowe réew dafa am ay piliers yu ko téye te pilier bu ci gën a am solo solo man mooy d'abord nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy porter nit ñi. Hmm. maanaam les acteurs ci domaine bu nekk. Euh, bu weesoon nit ñi deuxième pilier bi mooy li nga xam ne moom la nit ñi téye ci seeni loxo justice ci la bokk te mu doon ci ponk bu am solo. Hmm. alors justice boobu bu nërmeeloo rek amul dara lu mën a dox ci réew parce que yow doo nekk ci sécurité man du ma nekk ci sécurité ñoom nii falu hmm. duñ nekk ci sécurité ñi nga xam ne ils sont à l'application de la justice duñ nekk ci sécurité donc dañuy dellu ci l'état de nature boo xam ne ku am doole jaay ko sa morom te loolu jàpp naa ne euh, ñaanuñu ko ci réew mi mhm. euh, beneen bi may dolli mooy mhm. en 2018 amal nañu fi des assises de la justice dans le cadre la modernisation de cette justice là parce que la justice n'est pas que le conseil supérieur de la magistrature Mmh. Il ne faut pas que les gens se leurrent et mettent l'accent sur des choses essentielles, certes, mais pas englobantes. Parce que la justice est poncle là. C'est un tout. C'est un ensemble de tout mais dans juste, un mais, tout englobant. loolu moo tax ñu woo fa tous les acteurs. oui oui nga xam ne ñoom ñooy effectivement effectivement aussi. Euh, effectivement parce que déjà dans après le le le le dialogue. de 2018. autour de la modernisation de la justice. un rapport a été pondu mmh. qui a permis à l'État du Sénégal de construire presque dans tous les départements ou dans toutes les régions un tribunal moderne, mhm. régional, mmh. qui répondait déjà à la modernisation de l'infrastructure judiciaire. Mhm. te on ni a fait le pouvoir qui était là a fait des merveilles là-dessus. Mhm. il y a à boo fa demee tu trouves un tribunal qui a tous les acquis boo demee lu mel ni Sédhiou nga xam ne dañ daan jóge Sédhiou. di dem ba Kolda ñu leen di àtte ci benn région. ñu tabaxal leen tribunal bu bees. boo demee Tambacounda dafa am ñu daan jóge Kédougou. di dem ba Tambacounda ñu leen di àtte foofu. ñu wutal leen tribunal yu bees. mais y a eu d'autres infrastructures judiciaires. qui ont contribué à moderniser de la justice sénégalaise. Sénégal la justice en tant que tell elle n'a pas de problème xam nga lan la am. problème d'application. mais justement est-ce que. Hmm? loolu moo justifié. ndaje ndaje bi am jëm ñaañu. maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu laay ñëw. Hmm. foofu laay ñëw li ñuy xaar ci liy dippee ci waxtaan wi. mooy ñu fexe ba acteur de la justice bi mu gën a am indépendance moom par rapport à l'application parce que le président de la République qui siège. Hmm. au conseil supérieur de la magistrature est-ce qu'il peut influer quand Kandé est convoqué au tribunal de Dakar pour un jugement. fii yàgg nañu reproché ñu fi nekkoon loolu n'est-ce pas que ils mettent l'accent trop sur ils ont le président de la République a une mainmise sur le ministre de la Justice mm-hmm. le ministre de la Justice a une mainmise sur le procureur de la République mm-hmm. le procureur de la République peut influencer sur xam nga comprendre nga fi may waxee mm-hmm. foofu la ñuy xaar dialogue bi ñu fexe ba procureur bi comme ni ñu ko waxee ci sortie bii ni ñu wàññi dooleem ñu wàññi dooleem bu ñu ko defee nous c'est à saluer aussi man je le procureur de la République a trop de pouvoir dans ce pays il a trop de pouvoir dañ ko war a réduire wala ñu canaliser ko mais bu ñu ko réduire mais ñu canaliser ko ñu organiser ko qu'il puisse avoir aussi des gens autour de lui qui ont un mot à donner par rapport à des décisions judiciaires qu'il pourrait déclencher alors par rapport maintenant à à la à, au, le président de la République qu'il soit au Conseil supérieur man ça ne me dérange mhm. ñu génnee ko ça ne qu'on le mette là-bas, ça ne me dérange pas. Mm -hmm. Moi, je me focus sur ce qui se passe dans les de du Sénégal. foofu la problème bi nekk. na juge indépendant. qu'il soit bien traité pour que état bañ leen bañ leen corrompre. qu'il puisse être sécurisé. pour que l'état bañ leen détourner ci seen liggéey. loolu la ñuy xaar ci dialogue donc là tu trouves la pertinence. mais oui de mais oui oui c'est pertinent je dis que c'est pertinent. c'est pertinent tant que ça va dans le cadre de moderniser la justice. de la donner plus de pouvoir et plus d'indépendance pour que les Sénégalais que nous sommes nous puissions mieux être protégés par rapport à l'application de cette journée de justice là. Mhm. mais c'est à louer mhm. et saluer. alors très bien ma ma Yoro boo euh, loo wax ci sujet boobu ñu évacuer rapidement. parce que benn fausse ouverture la woon war nañu waxtaanee également yeneen ponk lu ñeel euh, action wala décision yi nga xamante ne moom la régime bu bees bi njëkk a jël bokk na ci la publication de rapports des corps de contrôle donc li ko dalee 2019 su ma juumalee ba 2024 amul publication boo xam ne jot na cee am mm-hmm. ki fi nekkoon le président de la république Macky Sall li mu waxoon nee na yenn rapports yi moom moo ci teg concam seen président ou tout simplement le président Bassirou Diomaye Faye bi mu njëkk bi mu ñëwee décision yi mu njëkk jël bokk na ci mu ordonné à ce que ñu publier les rapports des corps de contrôle defe naa jamono jii nii euh, OFNAC publier na ces rapports n'est-ce pas il y également euh, la Cour des comptes on attend encore euh, le rapport de de l'IGE ba léegi publier gul mais nan nga gisee première décision yooyu nga xamante ne moom la Bassirou Diomaye Faye njëkk a jël à deux mois après euh, son arrivée au pouvoir. waaw xam nga bi ñu campagne dafa am lu ñu waxoon sénégalais. Mm-hmm. jubbanti mhm. xam nga man dama koy wax personnellement mhm. maanaam li may gis si rapport cour des yi man gëwuma ko gëmoo ko xam nga tax gëwuma ko mhm. man mënuma gëm ne man sénégalais maam nit ko nit mun na bañee réew noonu quoi waaw c'est-à-dire que man dama naan lii bu fekkee am na waaw waaye mooy àdduna tukki woon na ko c'est-à-dire que man dama naan ñii bu fi defoon bu fi dolli waatoon yeneen ñaari at c'est-à-dire que fan lañ jëm quoi. ñenn ñenn bu ñu fi dolliwaatoo yéen ñaareel. mooy waa Benno Bokk Yaakaar yi fi nekkoon man li may gis si rapport yi quoi di ko liir nii. man dama naan yàlla bu nekk dëkk. que mënu ma gëm ne nit mun na bañ a noonu réew quoi parce que réew mu toll ne Sénégal ñu fiy jooy ndóol gu tar xale yi dugg ci gaal gi. Euh, sama saar gi dañu góorgóorlu rek ju ko daanu. ñëpp nag sutura ak sag dong la ñu dundee. Euh, lu matul téeméeri nit def nii sunu alal ji man loolu daf maa métti quoi dama koy naqarlu moo tax dama naan. du mhm. ma ko jéem a gëm ko parce que su ma ko gëmee rek. Mhm. mën na ma yóbbu ci beneen dimension. parce que am réew euh, yërmande da cee baax mhm. yërmande c'est-à-dire dama naan sunu ministre yi sunu directeurs yi dëgg yàlla fan leen waroon teg teg nañ leen fa nag boo demee ci yeneen réew yi àdduna yi. ñoom ci condition yi leen teg mun naa ne bëri na réew yoo xam ne nit nekk na fa directeur nit nekk na fa ministre te réew ma nga nekk gën a développé sunum réew te condition yi yi ñu leen teg fii teguñu leen ko fa waaye nag sëñ bi am yërmande dafa baax tuuti ci askan waaye nag man dama naan gis nga dafa am lu ñu doon bu njëkk politicien yi mooy mooy lan man dama naan du politicien cest à ci nit ki la gis nga boo déggee ne sëñ bi goreet yi dafa nekk sa sa sa sa sa deret nga nekk politicien nga nekk journaliste nga nekk footballeur nga nekk mbër yaa xam loo man def di nga foon goreedi te man li ma gis ci rapport yi man ak goreedi gu fës laa ci gis li tax nag may saluer le fekk que président ordonné ñu koy publier sëñ bi suñu njiit yi ñu yar leen waaw parce que munuñ bu ñu soxlaar réew mi eh, da lay jaral nga bañ a nelaw da lay jaral nga dem ba ci maire bi jaay caaf nga ne naa photo ak moom dalay jaral nga dem ba ci maçon bi nga ne ko almaturel bi mhm. yaa ngi war na sénégalais bi ne ko li ngay yëg maa ngi koy gis li ngay yëg maa ngi koy dund mais bis boo faloo indi opulence indi train de vie boo xam ne waaw bu extraordinaire quoi. j'espère que Diomaye ak ak gouvernement am duñu doxalee noonu. duñ ko ñeme sëñ bi. Hmm. xam nga en tout cas deux mois rek ngeen defagum. sëñ bi duñ ko def xam nga laa duñ ko def. Hmm. bu njëkk dafa am mbir nu mu daan doxee. ndax dañ ci gërëm Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu njëkk politicien bi da daan ñëw wuti ay kopparam kenn xamul fu mu koy wute nag bu ñëwee ci koñ bi yorob saagam ànd ak coor wala ànd ak kànde group bu mu toog waxtaan ak ñoom lañ ko wax ci soxla waaw rek lay wax. Mm-hmm. ba pare génn ci enveloppe ba dara am lu mu leen jox gaa yi bu ñu paree seddoo jënd ataay bu subaa mu yónnee leen kaar ñoo ñëw mobiliser ko bu subaa mu yónnee leen kànde kànde yóbbu leen ñoo ñu fote sëñ bi gis nga kooku bis boo ko falee. Mm-hmm. pare naa ak yow da ko jaay parce que dafa ñëw jox lay kopparam nga fal ko ñii nag li ma ci wax rek président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fay hmm. ñaaw la jóge tam hmm. pale président Ousmane Sonko Casamance la jóge dam pale El Hadj Malick pour dire quoi au juste hmm. mooy ay sénégalais lañ fal bii paa ah, ñi fi nekkoon du ñu ay sénégalais déedéet déedéet waay du ñu ay sénégalais ay extraterrestre la ñu woon. xam nga ban Sénégal lañ fal. <laughs> sëñ bi. extra extraterrestre lañ xam nga ndax man lay Sénégal lañ fal. xam nga ndax man lay Sénégal lañ fal. Mm-hmm. <laughs> da nga daan dégg la gars expérience. Mm-hmm. <laughs> Mm. mooy jaar naa ci direction. Eh. jaar naa ci ministère. xam naa nu ñu luubalee. xam naa nu ñu lëjalee. xam naa nguur mais la mooy nguur nguur fu ñu koy jàngee. mais mais jaar jaar am na solo quand même. xam nga jaar jaar xam nga lan mooy jaar jaar. il est en train de désacraliser. non ces institutions <laughs> là xam nga xam nga jaar jaar mooy lan. Euh, je pense que sa salle est très froide xam nga jaar jaar mooy lan. <laughs> xam nga jaar jaar mooy lan. jaar jaar mooy jub. <laughs> jaar jaar sëñ bi mooy xam-xam. jub ni ñu koy xamee ne mooy jaar jaar. dama ne la doomu aadama ci ñaar lañ koy tënkee. ñun mooy jaar jaar nit ci jaar jaaram. la ñuy xam ba xam ko jub la wala du ko léegi yow lan mooy seen jaar jaar ñu falu ni mais sëñ bi impôt domaine hmm. moom laa lay wax impôt domaine nga jaar fa ñaataat hmm. genre kànde yi hmm. des milliers de kànde ñi affecté leen ci plateau yi information bu ne jox nañ leen ko waaye bu nga génnee leen rek bu mar ñu dañoo juumal sëñ bi sénégalais Sonko lu ko waay bañ bañ bañ bañ da nga koy nangu ne dafa jub président Bassirou Diomaye fay lu leen lu ko waaye bañ bañ bañ da koy nangu ne dafa jub. Ousmane Sonko jubul. jub googu nag nangu nañ ko ñoom. ba tax na ñoom. Ousmane Sonko ñoo ko nangu ma ma ma yore justement. ñoom Kande. si naka. xam nga <laughs> déet ba bu ma heure bu ñu sànni xeer. <laughs> Kande moom da leen koy nangul. <laughs> Mhm. parce que dama naan opposition dafa baax ci réew. nga léegi nag ñoom Kande ñoo nekk opposition nag léegi. Sonko jubul léegi fi mu ne. Mhm. léegi fi mu ne xoolal léegi ñoom ñoo nekk opposition te leer na leen ñoom. Sonko jubul ñoom leer na leen réew mi day jub. Sonko jubul Kandé ci publication rapport col de contrôle. damay li li ma yoroo. Ah, xam nga sa jub jubal jubante bi mooy slogan bu bees bi nga xamante ne teg nañ ko. Euh, le nouveau régime ci li ñu euh, xam nga le malheur de ce pays depuis 2014. 2014 je pense que su ma ko waxee ma war na man a xam je crois à je de quoi à de me réfère. non non xam nga la date de naissance de votre parti. c' est 2014 que vous êtes venu au pouvoir. depuis 2014. malheureusement ce pays a fait face à un taux de populisme, si on pouvait le qualifier comme ça, qui risque de conduire ce pays avec votre arrivée au pouvoir dans le gouffre. On peut gagner, bien entendu, le pouvoir avec le populisme, mais mënuñu gouverner avec le populisme. mais décision ñu jot a yéen nag. c'est c'est du populisme. c'est du ah populisme continu ay décision ci publication c'est du populisme c'est du populisme c'est du populisme continu leeral mooy populisme leeral ñëw leeral li Sénégal la dinaa ñëw de non Kandé ma bàyyi ma wax de maanaam li Sénégal yëpp moom nga ordonné ne doxalin bi ñu ko doxalee ci at yi at yi nañ ko génne Sénégal yëpp teg seen bët sañu loolu mooy populisme pare nga ma continue non mais mais mais c'est c'est un débat. il a le droit de placer les mots c'est du populisme mais Kandé. c'est du populisme Thione. Il faut que je termine c'est du populisme il faut que vous me laissiez dire quand même en quoi cela est du populisme. quand même. Mhm. parce que rapport bu ñu publier. les gens utilisent des termes parce que loolu communication la. Mhm. par rapport à ce qu'ils veulent véhiculer. Mhm. ils disent que tel a été épinglé. s'il y a des Sénégalais mhm. man je veux être je ne suis pas dans la corruption politique mhm. je ne suis pas dans le nihilisme politique mhm. je voudrais que quand mes enfants me regarderont dans vingt ans qu'ils soient fiers de leurs parents s'il y a des Sénégalais effectivement yi détourné alalu réew mi sàcc ko yóbbu ko ci li leen neex si Bassirou Diomaye Faye et son second président de la République ah parviennent à le prouver. C'est le second président de la République. Non, laisse terminer quand C'est le second président de la République. C'est la première fois et d'une manière inédite. moom moom. moom moom. maa ngi ñëw second président de la République du Sénégal. <laughs> moom moom Kandé problème boobu la am quoi. et second président de la man dinaa dérouler. et second président de la République du Sénégal s'il jàpp ay sàcc mais mais est-ce que le mot on verra qu'est-ce qui est reproché tout de suite on n'a pas entendu des gens dire ici euh, dire quoi kon nañu dàq Ousmane il risque de mettre les, les <laughs> dans les roues de Bassirou Diomaye Faye donc c'est pas là le sujet le sujet maintenant que je voudrais terminer la question je voudrais répondre mm-hmm. si Bassirou Diomaye Faye et le second président de la République du Sénégal parviennent à trouver des deniers détournés mm-hmm. nañ leen jàpp yóbbu leen prison bu Kédougou tëj leen xam nga la moo tax ñun fii ci réew mi mm-hmm. sama commune bi ma dekk mm-hmm. dañu war a am ndox mm-hmm. jàpp naa ne xaalis boobu bu ñu ko mënee retrouver même bu mënul jox commune bi yëpp ndox mën na jox au moins quelques maisons ndox amoo ndox ba maa ñëw de damay ñëw non laisse-moi terminer c'est un exemple que je donne yaa tout le Sénégal n'est pas additionné en eau potable. non cest à pare de. man bàyyi ma pare bàyyi ma pare. mais bii compris c'est que man tu ne me connais pas moo tax ngeen naa yéen yor nguur gi da ma xamul di ma xam daa au cours de l'émission dama ne si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko retrouvent de la richesse volée des milliards je le salue les coupables de vol qu'ils soient traînés devant de la la justice qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur bêtise politique. ça c'est ma conviction les rapports des cours de je termine non ci décision il faut que mbaay ma tontu quand il faut ci les sénégalais qui nous regardent li xew mbuurkat loolu maa maa ngi ñëw maa ngi ñëw mhm. ce que je voudrais ajouter maintenant par rapidement oui les sénégalais quand on est allé à une élection présidentielle quand on part à une élection présidentielle Thior mhm. chaque président de la république est élu sous la base de ses promesses pas sous la base de ses réalisations mhm. les étant à l'opposition yu ñu defoon nguur population sénégalaise mooy bu ñu faloo parce que président Macky Sall dafa nul. sauf sauf sauf que Amadou Ba nag euh, il voulait être élu sur la base de des réalisations. parce que teg na fi a continuité avec. Euh, <laughs> li fi président Macky Sall jot a def <laughs> mais kon mais mais dama mais sëñ bi ay ay bi mais loolu lay utilisé le mot continue lay de mais il faut il faut que la termine pas yi ñu déglu man laay waxal allez mhm. fal président de la république mhm. laa wax mhm. waxuma yu ñu falul les sénégalais yi fal président de la république bu ñu ko falee dañu ko fal su la base de promesse am na wala amul d' engagement politique mooy suñu faloo dinañ def lii dinañ def lii loolu la wala du loolu. c' est sous la base de promesse. le pouvoir qui est là Bassirou Diomaye Faye. soutenu par Ousmane Sonko. ils ont dit aux Sénégalais pendant la campagne électorale. depuis 2014. que le président Macky Sall il est nul. il est corrompu. que son pouvoir est nul et corrompu. mënuñu ils sont incompétents ñun ñoo man ñun ñooy wàlli wi ñun ñooy yonente yi. ñun ñoo xam. Ah lépp luy ci àddina ñoo ko xam. ko loolu la gestion politique ñun ñoo ko man parce que on a réussi la naa jaar nañ concours yéen ko wax sénégalais yi et en dernier li ressource ressource de ce que je dis nous pouvons partir de 2018 quand Ousmane Sonko a présenté son livre programme fii ci obélisque j'étais là. Uh-huh. mu ne sénégalais yi bu ñu faloo. le livre solution. le livre solution nee na bu ñu faloo. Uh-huh. waxuma la deux ans wala trois ans. Uh-huh. ñun dañuy fali rek wàññi wàññi dund ki parce que président Macky dafa cuune. dafa tële nee na wala ñu dund. lenn rek la soxla. mooy volonté politique. muy détermination. moo ko wax quand la campagne présidentielle il est arrivé à Koungheul. devant ses militants. Ousmane Sonko debout sur une un véhicule. pieds nus société rek la soloon. kon xam nga gis naa ko. mu ne sénégalais yi président Macky mu toog mi cuune la. dafa soxor dafa ñaan il pas compétent. yaa ngi dégg ñi ko wër baaxuñu dañoo soxor ñooy sax ci réew mi. wàññi dund détermination la soxla. volonté politique la soxla. nee na ñun bu ñu faloo. Mhm. waxuma la ñaari weer je je l'emprunte tous ces mots. Mhm. waxuma la ñaari weer. Mhm. mais bu ñu faloo. dinañu wàññi dund bi. dinañu baisser le prix du panier la ménagère. on a dépassé les deux mois aujourd'hui vous ne l'avez pas fait. Ah Serigne dafa da wàññi dund dund bi dafa yokku. aliment de bétail wàññi ko waaye aliment de bétail ñun la ñu lekk ñun ay bétail lañu. mais yi ngay jàpp ay bétail non non xaar xaar d'accord c'est très bien sénégalais dégg nañu. mais bi ma aliment de bétail wàññi nga ko c'est non c'est très bien. mais mais je termine léegi yéen ne à plus de deux mois de votre arrivée tu prends les dix huit millions de sénégalais. nga wàññi ci un million. un million yooyu nga jël ci cent mille sénégalais. ils ne sont pas concernés par cette corniche là. toi et moi boo moytuwul duñu mus a am terrain ci corniche su Dakar par contre toi et mois dinañ dem boutique jënd ceeb. toi et mois dinañ dem boutique jënd diwlin man ak yow say mbokk say rakk say papa say wayjur say rakk say jarbaat say nijaay dinañ dem boutique jënd gerte jënd diwlin jënd soble jënd tamaate jënd ceeb jënd yàpp jënd jën. foofu lañ leen di xaaree. Parce qu'en réalité, c'était le reproche principal que les Sénégalais ont fait au président Macky. C'est pas parce que vous avez été beau, c'est pas parce que vous avez été mis. Les urgences, encore une pour terminer, mhm. ne se trouvent pas sur le foncier de Mbour. Mhm. Les urgences, ne se trouvent pas sur le foncier de Mbour. Les urgences ne se trouvent pas sur AIBD à Djamniadio. Mais Maïno, c'est pas ce qu'on euh, néglige, mhm. c'est pas ce qu'on néglige. Demandez, quand foofu la ñu leen di xaare et tant que vous n'êtes pas sur le réalisme politique et que vous sortez sur le populisme politique vous n'aurez jamais le consentement des Sénégalais. et vous mooy robot déggee ni ni Cheikh Tidiane Kandé waxee apparemment on a l'impression que di ngeen xaw a échoué par rapport ak promesse surtout sur la diminution du coût de la vie sànq yaa ngi wax les aliments de bétail dégg nga lu mu la tontu foofu que comme quoi que nous ne sommes pas de bétail mais est-ce que côté boobu également ngeen reconnaître ne am ngeen ci difficulté notamment sur la diminution du coût de la vie aussi sëñ bi gis nga sénégalais yi ñuy toog di leen seetaan hmm. ñi toog di ñu seetaan il faut ñu respecter leen hmm. xam nga jógee ci nguur fukki at ak ñaar ñëw duñu waxee urgence c'est-à-dire yow li ñu naan da ngay xaar Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye yaakaar la sénégalais yi am ci ñoom fal leen. boo ko bu ñu ko waxoon ñu dàqale. te yaakaar googu noonu. Amérique personne n'ose pas dire. dañ leen yónni aussi te yàkkamti leen. non dañ leen yónni yàkkamti leen nag xam nga sëñ bi. waaw am na loo ma wax sànq. dinaa wax yaa ngi def lu métti. et je t'encourage te damay saluer li ngay def muy opposition ak a baax yaa ngi fàttali gis nga li ngay wax nii yàlla na ko président dégg. yaa ngi fàttali mais dama la bëggoo benn affaire. président na ko dégg dina ko dégg. sëñ bi gis nga plateau bi di ko yónnee gis nga plateau bi <laughs> ak nguur bokkul. il faut dire au pouvoir au président Bassirou Diomaye Faye. les sénégalais ñoo ko fal. du ay nag yi ak xar yi nga xam ne wàññi na seen. déglu ma rek gis nga aliment de bétail boobu noonu mais tu oses tenir sur ça tu oses défendre cette idée là. mais sëñ bi dama tu oses dire que ni Sénégal yéen da ngeen wàññi aliment de bétail. mais sëñ bi xaar bàyyi aliment yi nga xam ne yokku na. sëñ bi xaar diwlin yokku na. sëñ bi sëñ bi dama bëgg nga déglu ma. sëñ bi yokku na lépp yokku. Euh, ngeen naan yéen da ngeen wàññi aliment de bétail. sëñ Kande sëñ Kande c' est extraordinaire ça c' est un aveu. sëñ Kande c' est un aveu que vous venez de faire. sëñ Kande gis nga vous avez eu le génie. jërëjëf vous avez eu le génie de baisser le bétail vous avez eu sëñ bi da nga déglu. prix du bétail nga non dem dem bëgg nga déglu ma. prix du bétail nga waaw c'est oui ma sëñ bi c'est quoi le bétail. mais yow yaa ngi wax dund. mais yow yaa ngi wax dund. man non non non non non. Euh, euh, euh, jéego bétail non dem bëgg nga déglu ma.

man boog li ëpp ci li may jëfandikoo bu ma xëyee ci bétail boobu lay jure. comme lan par exemple. meew. ci bétail lay jóge Sénégal meew bu ñuy jënd ci ñam bi lay jóge kan dama bëgg a déglu. mais mayo 80 pour cent du lekk du maçon. 80 pour cent du lekk du maçon dans nos boutiques. Euh, c'est à base d'oignon de kii de sëñ bi ça vient pas des animaux. dinañ ci dugg 80 pour cent je vous dis. vision. waaw weesu nga yor oui ma sëñ bi. ñàkk vision. xam nga ñàkk départissez départissez de l'ombre de Macky Sall sëñ bi sëñ bi dama bëgg déglu ma sëñ bi dama bëgg ruus yow c'est-à-dire que ruus gouverner sam réew non oui ma non euh, euh, Thior Thior <laughs> Thior man li saaga ndey laa ko jàppee non non non Thior déglu ma Thior non Thior non coor coor xam nga xam nga man dama bëgg xam nga man dama bëgg. coor dis-lui xam nga man dama bëgg. je n'ai jamais été DG je n'ai jamais été PCA. sëñ Kande je n'ai été jamais été ministre je n'ai jamais été maire. sëñ Kande yaa ngi dégg dama lay fàttali. sëñ Kande ça vous vous trompez. sëñ Kande sa discours bu gënoon suñu discours. dama ne duñu falu dama bëgg nga déglu ma. c'est une déception. c'est que quelqu'un soo mënul déglu. non soo mënul déglu nous avons baissé l'aliment de bétail. pendant que l'aliment de bétail le prix de l'aliment de bétail est en train de flamber. non soo mënul déglu non soo mënul déglu man dama lay wax ñaar

am baat bu mu teg mu ne Sénégal mais bu ñu utiliser si ñàmbi lay jógee man saaga ndeyam. 80 pour cent du lait consommé c'est pas du ñàmbi. sëñ ko déglu bi déglu ma du contenu ko fi. doo ma déglu ma tuddee ko saaga ndey. Euh, si si s'il vous plaît mais gis nañ le président ou tout simplement le premier ministre Ousmane Sonko ci sortie bu mujjee def yàggul dara wax ci li nga xamante ne moom mooy promesse yi ñu defoon. notamment mm. sur le coût de la vie. reconnaître nañ quand même. affaire yi xaw na am jafe-jafe. est-ce que. sëñ euh, Thior ma yor pour mu gën a yomb doo ko reconnaître rek ñu avancer. sëñ xam nga dama ne la. jiitam réew fukki at ak ñaar. vingt et unième siècle nga ñëw tiim sam réew. tiim say xale. tiim say wéjur. di leen wax ne. naan leen quatre vingt pour cent meew mi ngeen di jëfandikoo meewu ñàmbi la. sëñ bi loolu saaka ndey laa ko tuddee te amul solution. te solution yooyu. c'est quoi votre solution sur ça. dama bëgg nga déglu ma. luy seen solution yéen yéen ñi fal. xam nga xam nga ñun ñu ñu fal. Mmh. luy seen solution ci réew président dafa am vision. Mmh. tey ñu ngi développé. lu seen solution ci les agropoles mais est-ce que ci ceeb bi. non ñu ngi développé ñu ngi wax les ñu ngi développé les agropoles sëñ bi xam nga Sénégal. ñaata lay importé si ceeb. million virgule deux tonnes sëñ bi mille soixante dix milliards ngay importer par an. et pour cent millions d'euros. ngay importer ci wàllu meew. sëñ bi nga bëgg a wax autosuffisance mais da ngay teg ay solution solution yooyu noonu il faut mu déglu ñu déglu ñu pour ñu xam lan la ñu proposé xam nga xam nga président bi mu ñëwee dañuy wax les agropoles on parle d' actuellement exemple ma jël agropole Ferlo nga xam ne da jël Jolof ba ca zone Ferlo ba ca Raneeru ñu tuddee ko les agropoles du Ferlo ci biir loolu noonu président ak ministre bii nga xam ne mooy ministre bu xarañam bii mu teg muy docteur Mabouba Diagne dañu prévoir tey def des abattoirs modernes xam nga lu tax loolu sëñ bi ndawal bokk na ci li tax mu cher mooy la ngay jëlee nag bi Bambey di ko jëlee Daara Jolof di ko indi dakaar sëñ bi transport day am bu dee transport amul waaji da koy dàq waaji bu fekkee dafa ko dàq nag ba day rës bu rësee am na kilo yu mu perte moom bu ñëwee faw mu tegaat ko si prix ba loolu day tax mu cher moom nee na 80 pour cent ci meew tey dañ koy importe loolu j'ai pas dit ça xaw ma noo ko tuddee. Euh, rapidement ñëw 80 pour cent ci meew lu ñu utiliser ay produits ñaam bi la. parce que da nga koy importé am nañu wax. loolu man dama ko jàppee mooy ñàkk vision sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñii nga xam ne nag bi ñu ñëwee nekk nañ fi jàng nañ tey am nañ xam-xam bi te moo koy wax. son excellence mais mais xamaguñu yoon bi. non xam nañ yoon bi xam nañ yoon bi parce que tey le ministre euh, de l' agriculture. Mhm. ak de l' élevage mobilisé na bi mu toogee léegi 51 milliards. ci ci diggante badd ak banque islamique tey ñu ngi wax des coopératives agricoles maa ngi la koy wax léegi tey agropole du Ferlo suñ ko développé tey nag boobu nga xam ne moo nga nekkoon ca Jolof bu ñu amee abattoir foofu di mën a lijjanti ndawal gi foofu muy ñëw fii ñaata lay créer ci emploi sëñ bi ndawal day wàññeeku meew ma nga xam ne suñu mbokki pëli dañ ko daan tuuri dañ ko daan tuuri parce que mënuñ ko conserver dañ ko daan tuur yi c'est-à-dire ñun jamono ñu toll di tuur meew yow yaa ngi wax ne meew mu ñu utiliser ñam bi moo tax man ne la sëñ bi gars yi dinañ dal parce que am réew non non gis nga sëñ coor non solution laa lay wax mhm. parce que tey munoo bëgg wàññi dund tey yow munoo bëgg a wàññi dund ne dangay dem ba Ukraine wala da ngay dem ba Russie exiger leen nañ ñoom dañu wàññi blé mais sëñ bi mhm. sénégalais ñu ngi expérimenté wu fii blé sëñ bi ñun dañuy war a bay te bay boobu pour ñu def ko dañuy bay noor. danoo war a nan ñoo nan ñoo koy danoo war bay nawet. est-ce que du promesse bi ngeen def. est-ce que yaa may dégg bu baax léegi nag. Euh, nag sëñ bi gis nga réew. nga daanelee foofu dafa am ma ko bëgg expliquer rek sëñ bi gis nga réew. Mm-hmm. réew du ci réew du plateau l'état c'est du sérieux gis nga sénégalais mm-hmm. dañu am yaakaar mais vous n'êtes pas encore dans le sérieux vous êtes dans le populisme sénégalais am yaakaar ci gouvernement bi gouvernement bi ñuy am yaakaar ci moom mu ngi def ay pexe pexe yooyu moom laa ko expliqué dama ne ko tey ñun tey suffisance en lait dañ ko war a am. le riz naka lañ ci population en riz. qu'est-ce que vous comptez sëñ bi dama ne la un million virgule deux tonnes de riz wu sëñ bi waratuñ di ko importe muy ñëw sëñ bi loolu ñaata la ci alal sëñ bi dama ne la cent millions d'euros waratuñ ko def ci importation lait alors que meew maa ngi fii boo demee Daara Jolof boo demee Linguère boo demee Ranérou boo demee euh, Vélingara loolu nag non xoolal xoolal dafa am sànq lu wax dafa am lu wax sëñ bi pël bi boo ko wàññilul njëgu ripaasam mënoo ko exiger ne ko da ngay wàññi xar xar boobu noonu boo ko wàññiwul yow man ak yow non dama bëgg a déglu ma ah, xoolal gis nga euh, sëñ bi sëñ bi sëñ bi man nangul naa la mais dafa am benn affaire mu la bëgg expliquer ñun sénégalais dañ ñu fal di xaar ñun ay solution xale yaa ngi fi liggéeyul di xaar ay résultat résultat am na sànq fu mu ko waxee mm-hmm. sëñ bi domaine maritime bii ma daan jugee Daara Jolof ñëw Dakar Ah, dama daan am sañ-sañu paas sama 300 francs dem ba Dakar jàkkaarloog mbeex mi sëñ bi ay nit groupe bu nit laa la wax de bëgg ñu ko xañ président ñëw ne loolu du fi am wala du jàll sëñ bi nga jël lu mel ne mbuurkaat ab dëkk nga séddale ko ñetti nit ab dëkk sa à dire que ab dëkk. c'est-à-dire que ñetti nit non xoolal nga jël ab dëkk. ñetti sëñ bi kenn ak nit. nga jël parce que dafa jege président. kenn nit dafa ñëw parce que dafa jege woon président. nga yéeg ko jox ko 200 hectares. hectare bu nekk 40 terrain lay génn. kan la ci par exemple 200 benn nit moom ko. kan la jamono jooju benn góorgóorlu mu ngi woon Thiès. kan suba ba jant soow moom amul fu mu dëkk kër booy juram la dëkk te kër booy juram ab poxo sa ci dëkk nga koo xam ne làmmiñam moo ko may wala fitam wala sawara ñëw ci plateau yi nga ne ko noo sëñ bi dinaa la affecté benn trois hectares président ñëw ne loolu day dakk après nga boo euh, xam nga xam nga je pense que xam nga lu muy lu mu doon négliger sànq moo leen di rattraper mm-hmm. l'état il faut de la pratique de l'état boo ci bëggee boo bëggul daanu sinon tu tombes dans ce qu'on appelle le fardeau. pratique du le mais pratique de l' état état dañ koy pratiquer sa waay. mooy jaxas jël suufu askan bi. waaye non mais xoolal jël alalu askan bi loolu moo doon. malheureusement loolu nga tuddee malheureusement peut-être fi may waxee dafa bari. tu me permets une une minute rek une minute laa la ñaan. waaw ma daanale foofu quoi dama ne. il risque de voler mais une minute laata dinaa ko wax. Mhm. dañuy perdre temps l' état boo koy doxal. ci ñaar la. boo ci génnee jub ma bàyyi. bàyyi ma ñëw rek lépp ci jub jubal jubanti la. ma dimbali la pour te dire que man. je suis pas comme ñun foofu lañ toog je suis pas au niveau. gis nga xam-xam ak wax. Sénégal ak koor gis nga Kande. mais si jub laa bëgg nga dañ ne l'état l'état c'est lui qui doit me permettre de d'utiliser les humides que tu m'as l'état dama ne l'urgence. l'état quand tu fais si construire de l'état. tu as besoin de réaction structurelle et de solution conjoncturelle. quand on te parle de conjoncture maanaam l'état est devant l'urgence comme la cherté de la vie tu prends des mesures conjoncturelles tu règles le problème pendant qu'à côté mais bàyyi ma pare jox ma solution bàyyi ma ñëw jox ma solution je lui donne une solution tout de suite ci mbeex mi mhm. ñun ci taax bi lañ jàng mhm. loolu yëpp mën la wax léegi solution si coor le permis mhm. la les mesures structurelles man dama lay wax dama de prendre en charge les préoccupations louables qui sont dans vos têtes. Mm-hmm. et que vous avez du mal à matérialiser maanaam ñu am autosuffisance ci lépp. c'est louable ñun loolu la ñuy xaar ci nguur gi mais ñu vous êtes incapable de faire face à des problèmes conjoncturels ils sont incapables ils sont incapables non mais ils n'ont que deux mois justement mais dama ne coor c'est vrai dama ne sénégalais yi moo ñu dégg nag bugguma xam nga mhm. les problèmes conjoncturels permettent de prendre en charge des les solutions conjoncturelles les, mhm. de faire face aux urgences qui s'imposent dont la vie chère par exemple Alors. récemment je vous donne une information mm -hmm. Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye a ordonné qu'on verse sa caisse noire qui s'élève à hauteur de 7 milliards ah bien sûr boo ko xam ma xamal la ko léegi Bassirou Diomaye Faye a encaissé pour sa caisse noire mm récemment depuis qu'on na annoncé leur élection ñoo ngi tëdd fii ci benn hôtel ah ci bien dañ fa ñoo ngi tëdd fii ci benn hôtel di fay pratiquement plus de cent mille francs un million par journée par nuitée. Ah euh, bien sûr mais oui bien sûr. yow li yoon am nga ci preuve yow li yoon bien sûr. nañ ma plus deux millions de francs CFA ñoo nekk ci hôtel bu ñu fii. ban hôtel la mais bien sûr ah da xam loolu Sénégal la ñëpp ko xam. beneen bi boo leen jëlee seen caisse noire yooyu dugal ko ci dund. waaw Macky Sall kay laar yow quoi. finalement vous avez en 2019 en 2012 19 jours la def mu convoqué le premier conseil interministériel. sëñ bi dañu bàyyi ma sëñ bi dañu bàyyi ma pour dire que vous êtes ma retourné ci ci ci laa waroon a presque plus d'une minute Mayoro. Mhm. au moment où ñuy amal les assises de la justice. gis nañ également ay arrestations yoo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne acharnement la le cas Bah Diakhaté mhm. Imam Ndao y a des qui ont été après finalement ils ont été relâchés gis nañ également le cas Madiambal Diagne avec le blocage de ses comptes est-ce que loolu am na cohérence on parle des assises de la justice on voit que euh, justice mu ngi mu ngi woo vraiment di déglu ñoo xamante ne ci beneen camp bi lañ fare est-ce que loolu également amul lu muy friser lu ci mel ni la chasse aux sorcières wala un règlement de compte quelque part euh, xam nga man kaw baa kaw baa jaxate bi mhm. man première rupture ci kaw baa jaxate laa gis première rupture première rupture man ça veut dire maa ngi ko gis ci kaw baa mooy mooy lan lan nga bëgg a wax dama ne la tuddee première rupture dama ne la nguur gi fi nekkoon hmm. yoroon na xeetu caay-caay goo xam ne jën bu mag bu mel ni baa jaxate buñ ko jàppoon heure bi xamul nga lu ñuy wax instruction ñooy gëstu ay mbiram. buñ ko buñ nekkoon niip. Hmm. c'est-à-dire bu fekkoon dafay tombé goon position bi mu nekk nii. boo déggoon ne dafay tombé goon nguur gu caay-caay gi fi nekkoon. Hmm. buñ jàppee ku mel bu ñu amee tarfatal ay ni ci moom. heure bi waxaguñ naan mu ngi jàkkaarloog procureur rek mu ngi jàkkaarloog juge donc Bah Diakhaté teg nañ ko loxo jébbal nañ ko procureur àtte nañ ko xam na li muy tëdd. loolu lañ doon xeex. trois mois ferme. gis nga sëñ bi dama koy wax saa yi fii dama la koy wax. <laughs> da nga koy kenn du ma vaar xam nga kenn du ma vaar. liñ doon xeex si nguuru Macky Sall liñ doon xeex ci nguuru Macky Sall mu jaroon ñu yàqoon suñu ay nelaw. Mhm. xëy daan mbëkkanteek ñoom. gis nga wuyu yooyu noonu jikko yooyu ñu yoroon ñii buñ ci tàmbalee def waxuma la ñett de bu buñ ci tàmbalee def benn du ñaar. d'accord xam nga lu tax. Mm-hmm. askan bi leen faloon sëñ bi parce que faluñ Bassirou Diomaye de dama la koy wax. Mm-hmm. coalition Diomaye fa faluñ président de sénégalais yi ñoom ñoo fal son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo tax ma de la mooy le président bi gën a légitime. Mm-hmm. ci histoire politique gu Sénégal. Ah fajar la gaa yi jug. tàngoor la tombeek koor la ñu des ci la ma ne si jubloo wax mooy dama ne lañ daan xeex mhm. lañ daan xeex ñun dañuy continuer ba tey di ko xeex Bah Diakhaté jàpp nañ ko mhm. lan la def dama bëgg rek ñu ne ma aussi ay journalistes man man dama bëgg ñu ne ma dama bëggoon tey ñu ne ma Bah Diakhaté li mu def mhm. kenn waru ko si jàpp man loolu laa bëggoon ñi wax ma ko mais Bah Diakhaté sénégalais la comme tout le monde man li may wax nekkal rakk Bassirou Diomaye Faye nekkal doomu na jaay Sonko boo yoon nañu jàpp loolu c'est ma position te dama koy défendre nekkuma sama nekk ci plateau laa nekk. Mhm. ay sénégalais ñoo may suivre. amul benn sénégalais ka nga nekk journaliste ka nga nekk koo mun di doon foo mën a bokk mhm. sëñ bi boo defee lu dul yoon nañ la teg ci yoon. yaa ma déggoon dëggam baa jaxate nag jàpp naa ne def na lu dul yoon parce que su ma ko doon digal dama naa ko li nga def waroo ko def def nga lu dul yoon jàpp nañ ko teg nañ ko daan au moins moom buy tëdd. Mhm. xam na ne ñetti weer yi bu ko tëddee day génn. sëñ bi ñaata sénégalais lañ yóbbu instruction 11 mois. sëñ bi ñaata doomu sénégalais ñaata ñaata ñaata doomu sénégalais la ñu jàpp yóbbu leen instruction 11 mois ñenn ñi yemuñ ci lool ñenn dañ leen dugal kaso sëñ bi yàq seen ay cër torturer leen man fekkee naa. man fekkee naa fu élément GIGN jàppee ni dóor ko ba mu yuuxu imaginer ko am njaboot nga dem ba yuuxu ñu jël kooku yóbbu ko kaso génn war ko bàyyi ko mu dem sans ñu toppee ko dara yooyu dañ bëgg mu jeex fi képp ku def. lu dul yoon foo mën a bokk dama koy wax mhm. foo mën a bokk foo mën a bokk foo mën a bokk foo mën a bokk sëñ Ousseynou Fall jàpp nañu ko démb Ousseynou Fall xam nga ko doon jàppee mhm. xam nga ñu ko tuddee Ousseynou Fall mhm. Ousseynou bu Sonko turam dañ ko dañ koo boole Ousmane Sonko comme ñu naan eh, Balde bu bu bu bu bu bu Macky wala Mayoro mu Sonko dañ ko jàpp yoon mu ngi def liggéeyam bu dee moo tooñ dañ ko topp man li may wax fii sëñ bi déggoo ma de xolal financier xolal xolal financier campagne Bassirou Diomaye Faye dàq la xeex ëppal làmmiñ ëppal mbooloo boo defee lu dul yoon nañ la tegu ci yoon. parce que li. Euh, dama koy dama koy jaajafal rek xam naa question bi déjà. Mhm. dama koy jaajëfal ci fu mu tëjee. Mhm. xam nga ñii quand le bruit triomphe. la quand le bruit triomphe la région disjoncte looloo ko daal léegi xam nga Azoura Fall xam nga. Mhm. c'est le premier Sénégalais dans l'histoire politique de votre politique de votre depuis que vous êtes arrivé au ki toog saaga ndeyu président de la république tudd cëri way jur président de la ah république Azoura Fall wax am nga saaga bi bien sûr boobu bu ñu baree ma woon la ko ma ko le gars peut le montrer tout suite moo taxaw saaga ndeyu Bassirou Diomaye fay du ma wax sax président de la république Bassirou Diomaye la wax mu saaga ko ndey Bassirou Azoura Fall moom moom la ñu gis muy longoo ak premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne il est à l'origine de l'arrestation de Bah Diakhaté Ah et vous bien sûr. mais Bah Diakhaté li mu def lépp da nga bëgg a jiñ benn Sénégalais. nga jiñ ko ñaari ah. tu peux pas m'interrompre laisse-moi finir moo dëgg Bah Diakhaté. nit laa waxal je pense que tu es suffisamment intelligent. non non non dama ne. saaga président Ousmane Sonko guddeeg bëccëg. caavi le deuxième président de la République Sénégal votre président de la République. mais c'est le président de Pastef yéen yéen Ousmane c'est le président de Pastef gis nga turu président boobu mënoo ko ci mënoo ko ah. moom laa njëkk a dégg. Azoura Fall c'est le premier sénégalais. depuis que le coalition Benno Bassirou Diomaye Faye arrivé au pouvoir. Mhm. bi taxaw mu nekk ci biir réew mi fii. saaga ndey président de la république dara fekk ko ci. ah bon ba pare mu dem lonko ak le président de votre parti politique le premier ministre Ousmane Sonko. il n'a pas été inquiété. Ah bien sûr il yoo xamoo loolu yow. saaga ko saaga ko. tu fais semblant tu les gens. mais yëguma ko pas honnête il faut être honnête. mais sëñ bi yaa ngi may saaga. tu dois être honnête quand même. sëñ bi loolu dina ko xam ñëpp xam beneen bi. Mhm. on nous parle d'une justice Thior c'est vrai si vous me donnez la parole il faut que tu me laisses beneen bi may dolli mooy bi may dolli mooy mu leer je vais résumer je il faut parce que les Sénégalais nous écoutent dañ ne li ngeen jàppee Bah Diakhaté yërëm naa la du c'est pas parce que def na lu bon saaga na wala wax na lu ñaaw personne ne salue personne ne peut encourager wax yi bon ñu teg ko ci deru nit. non man daf ko defu ko baa daf ko defu ko. wax na wax yoo xam ne man du ko wax. man maa la gën a jantal men def na wax yoo xam ne man du ko wax du ko wax nit. dañ ko a wax sa dof bi nekk ci mbedd mi. mais dañ ne mhm. yéen. saaga bu bàyyi yéen kaw baa jaxate lañu wax dama ne yéen. yéen laa wax yéen waa Pastef saaga bu bon mhm. xaste saaga kilifa diine saaga président de la république ah faasa saaga magistrat saaga président de la république yéen ko jàngal sénégalais ñoom ñoo ko jàngal sénégalais na jàll nag yooyu je reviens sur la question je reviens sur la question je termine c'est le signal dañ ne la première identité d'un véhicule neuf mhm. c'est la clarté de ses moom ngeen def ni yéen da ngeen woone seen bopp te dama ko leen fan yéen benn weer ngeen amagum ngeen di souffrir bay waaw benn weer benn weer ngeen amago dañ ko war a jàpp lu waruñ ko jàpp règlement de compte dina am même les assises non dañ même boo gisee j'ai un peu mm-hmm. de réticence dans le cadre de ces assises autour de la justice mm-hmm. je pense que lu ñu fay dippee te duñ ko wax nit ñi lu fay génnee te duñ ko wax nit ñi duñ ko waxtaanee duñ ci conférence de presse tegal ko nit ñi leeral ko mooy dolli pouvoir premier ministre protéger seen ñi falu fii pour que ku leen xuri ngeen xosi ko yóbbu ko prison te loolu du jàll dama leen ne du jàll non ça ne passera pas parce que quand même on sait vous parlez beaucoup mais vous n'êtes pas plus intelligent que les ah gens beneen bi mooy coor gis nga ku longoo ak góor jigéen même buñ la saagawul dinañ la xeelu ñii dañoo longoo ak ñi longoo góor jigéen déet waay waaw laisse-moi expliquer en clair lan a foofu ku ak góor jigéen ngi dégg buñ la saagawul diñ la xulli wala ñu xeelu la yéen da ngeen longoo ñu longoo ak góor jigéen di. ah bon luy loolu voilà nga bëgg a wax foofu Kande. Ousmane Sonko est arrivé à la tête de la mairie de Ziguinchor en 2004 2022. Mhm. six mois la ci teg mois de juin. il reçoit le gars qu'on appelle Najib Nassa seen technicien bi mën na ko wër il reçoit Najib Nassa. à la tête d'une Najib Nassa. sëñ bi bu la demoon nag da ngay leeral kan mooy Nassa. c'est le troisième adjoint. oui. de la mairie de Havre en France. dans cette mairie c'est contrôlable je parle sous le contrôle de votre technicien et de tous les Sénégalais qui nous suivent Nazib Nassa à la mairie de Havre il est le président de la commission solidarité et euh, il est chargé solidarité de la lutte pour les droits des minorités mooy les homosexuels moom ci France dañ koy tuumal borom ñaari tuuri moom la Ousmane Sonko njëkkee recevoir à la mairie de coopération mais mais est-ce que bàyyi ma rek bàyyi ñëw bàyyi ñëw daa pourquoi Ousmane Sonko n'a pas reçu le maire de Havre son homologue bi pourquoi Ousmane Sonko n'a pas reçu le premier adjoint de la mairie de Havre pourquoi Ousmane Sonko n'a pas reçu le deuxième adjoint de la mairie de Havre qui est chargé qui est chargé de la lutte pour la protection de l'environnement mais ki nga xam ne moom lañ dënk mbirum góor jigéen dong na. mais ci ban cadre sëñ bi nga koy leeral non non non mais ban coopération je termine mais leeral eh, eh, mais leeral wax na waaye dama ne am na doon dañ ne non sëñ bi mën na la recevoir le maire non non non mën na la recevoir le premier adjoint mën na la recevoir le deuxième adjoint mais c'est le troisième adjoint ki nga xam ne waxoo fi xam-xam waxoo fi xam-xam waxoo fi xam-xam non non non non non non waxoo fi xam-xam dañuy continuer ci ban cadre la ko recevoir dafa sensible non oui ma c'est pour votre bien quand même c'est pour votre bien sëñ bi Ousmane Sonko li mu wax moo ko njëkk a wax dañ ne Ousmane Sonko premier sénégalais bi taxaw jàkkaarloog tubaab ne ko bis boo bëggee guerre jugee ci suñu diggante bi da ngay déglu deuxième ku mu njëkkeeru suba acte deux bu ñu posé ñoom <laughs> seen bande bii acte deux ñi nga xam ne dañuy longo ak ñi longo ak góorgóorlu acte deux bu ñu njëkkee posé mooy Bassirou Diomaye Faye moo ko posé laaj moo lan la. mais mais quand même. Bassirou <laughs> Diomaye moo ko njëkkee posé le président Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye Faye moo posé l' acte deux pour longo ak ñi longo ak góor jigéen mooy Michel Charles Michel xam nga kuy Charles Michel. non non Thior. Charles Michel c'est le président de la commission européenne. il est belge. moom la Bassirou Diomaye ma ma pare di nga ma pare. moom la Bassirou Diomaye mooy dooleem sur mais je viens je viens. sëñ bi moom la ñu ñaan il n'a pas reçu. sëñ bi il faut ñu rester sëñ bi daw dinaa ko wax sénégalais. mais daw li ngay daw acte deux bu ñu njëkkee posé ci longo ak ñi longo ak góor jigéen ñi mooy Charles Michel bu mu Bassi bu président Bassi il faut il faut il faut il je précise quel que l'intérêt mais waxuñu personne c'est la personne dama ne je ne diabolise des faits moi je toujours sur les faits

mais il est à côté de la de cette fonction là qu'est-ce qu'il est il est le seul européen l'être humain au monde qui bi taxaw ci télévision ne man moom maire ami tel la xam nga meilleur ami noonu belge boobu noonu c'est le mari c'est l'épouse du premier ministre belge le premier cadre européen ñi taxaw célébrer seen mariage góor jigéen publiquement moom Charles Michel mu dem fa. bàyyi ma pare de ma pare sonn xam nga xam nga ñii comme dañoo gaaw a jàppe. dimbali ma rek damay bañ ku ma jàppale damaa bëgg leeral. Mhm. Bassirou Diomaye Faye kooku. <laughs> moom Charles Michel moom Charles Michel moom dinaa wax lu leer li may wax ni lu leer parce que ñoo ko def Charles Michel moom ku mooy kan c'est le premier être humain de la planète Terre mhm. à recevoir un prix pour les luttes pour les droits de la part des homosexuels en France. moom la Bassirou Diomaye Faye. mais recevoir par moom la ñu la wax. mais président moom la njëkkee recevoir. loolu mënoo ko dindi. bu mu ko recevoir ba pare yemul foofu si xoolal Ousmane Sonko posé l'acte 3 à l'université de Dakar la veille de la journée internationale dédiée à l'homosexualité Jean luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon moo taxaw sénégalais devant les enfants l'autre këram ne je suis le premier européen ah. français proposer une proposition de loi pour autoriser ñaari góor jigéen ñuy ci biir France UCAD la ko waxee. Euh, mais fan UCAD euh, mais réew la koy proposé. Sénégal la ko waxee mais Sénégal la ko waxee a ko def voilà. Mm-hmm. bon dama lay jox tout nga répliquer par rapport à ce qu'il a dit on avance un peu après ñu jéem xool ni ñu organiser débat bi pour mën a épuiser le protocole parce que li ñu dese ci temps bëriwul par rapport ak li mu wax nii il a mis sur la table. Mm-hmm. ci ñi nga xamante Euh, que soit la mairie de Ziguinchor que ça soit le président de la République Bassirou Diomaye Faye qui a reçu Charles Michel euh, Michel autant pour moi au palais de la euh, présidentielle après il y a Jean-Luc Mélenchon à l'UCAD 2 alors ban réplique ban tontu ngay indi ci li mu wax noonu justement ñu jéem a. xam nga wax na fi ñett mbir. Mhm. gan nga Ousmane Sonko recevoir oon ca Ziguinchor kilifal commission européenne ba. Bassirou Diomaye recevoir ca Palais. Mélenchon ak Jean-Luc Mélenchon. ak Mélenchon bu mu recevoir la veille de la journée internationale. dama bëgg nga déglu ma nag. dama euh, la. son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu recevoir président commission européenne bi man dama naan keroog bu doon làmb la ma ne ku kawoo la ko dóor moom. kan ku kawoo. président commission européenne. mooy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ku kaw. moom moo dóor ku kaw Charles Michel. moo dóor ku kaw Charles Michel. xam nga lu tax xam nga sëñ Coor. saa kii li muy wax Coor suñu toogee suñu toogee di waxtaan. <laughs> suñu toogee di waxtaan. Mm-hmm. man bëgg naa bu ñu si jugee sénégalais yi. am luñ jàngat. Mayra toi aussi. te nañ leen respecté <laughs> s'il vous plaît te nañ leen respecté. <laughs> c'est que. Euh, di bañ a gis nga saa yi man dama naan sunu rakk yi man dama naan sunu rakk yi. buñ ñuy seetaan wala bu ëllëgee bu ñu demee bay dugg ci YouTube di seetaanal vidéo yi. Mhm. war nañ ne grand bi de jour moom koy déglu dégg naa ci moom xam-xam. Mhm. mais ku kaw bi justement. lan nga nga jàkkaarloo kilifa gën toll. Mhm. nga ne ko dañoo bëgg su suñuy relation ñu ne génn ñun dañ ciy bëgg di gën a gis suñu bopp léegi. Hmm. loolu mooy ku kaw. damay déggoon dëggul. Hmm, si si parce que bu njëkk liñ fi gisoon. moo tax sànq ma ne la. Sénégal mu ngi door am président sénégalais. dañ daan am président yoo xam ne seen lépp France la ba ci tay sax. Hmm. fi mu gis nga. ki fi mujj gis nga ko. ñoom jël nañ ko. ñu ngi koy liggéeyaloo. daf nañ ko mbindaan ñu ngi koy yóbbu. xam nga nga jàkkaarloog njiit gu ñu toll. te sëñ Kandé. nga ne ko la président commission européenne bi mu fi ñëwee da ngaa dégg benn yoon ci kàddoom mu wax fi turu mbirum ñaari turi da ko dégg yow. mais Ousmane Sonko il faut être honnête. non non non non dama bëgg a déglu. il faut être honnête il faut être honnête cest à bu amul. Mm-hmm. danga naa ma amul bu amee man am na sëñ bi dama bëgg a déglu ma sëñ bi sëñ bi bëgg man xoolal gis nga doomu aadama non oui ma sëñ bi sëñ bi sëñ bi non gis nga sëñ Kandé il faut pas entrer dans le secret koy def sunu borom am na la ci dénk am na lu ma bëgg nit ñi dégluñu ñu waxtaanee xam-xam wax lu jëriñ tamit bañ fa dajee dama ne la man la ma ci gën a neex mooy kilifa gën a toll nga ne ko sëñ bi dama bëgg bët bi ngeen di xool Afrique bët bi ngeen di xool Sénégal ngeen soppi ko parce que dañ bëgg diggante yoo xam ne. guleet la ci réew mi ñun danañ ci gën a gis suñu bopp. guleet la ci réew mi. Mm-hmm. loolu mooy bi njëkk. Jean-Luc Mélenchon bi fi ñëwee wax nay waxam wax na lu ko neex wax na lu mu bëgg wax na la mu xalaat wax na yéeneem wax na fa mu koy xeexee. Mm-hmm. waaye dama naan ñun Sénégal ñaar moo mën am mm-hmm. dafa xaw a gis du ma ko utiliser mooy baatu naa feq mooy nga gis dara ba pare gëmm wala nga dégg ay wax pare bëgg ko soppali xam nga nga tiim nit. sunu maami laay wax ak ak sama nijaay yi dëkk àll ba dégguñ olo dégguñ tubaab ne ko bu ngeen lii ni ngeen bañee yéen yéen seen réew gis na ñun nit warta am mën a am ñeenti soxna ba tax ngeen bañ ko te man mii di wax ak yow su may ñëw sax incha allah sama ñaar la ànd ak hmm. na ngeen ko bañee sama ñaari soxna bam jaral leen nit kuy muuru ba mu jaraleen seen i yéen réew ñu fay ay ay noddog yu demee noonu da bëgg nga déglu ma sëñ waaye xam ne non ma tere wax ma déglu na ngeen xam ma déglu à sa ma déglu de <laughs> ak maa li ngay def <laughs> opposition la nekk ak wér. <laughs> dee ko may ndox. Thior euh, gis nga Thior. nga tiim nit kooku noonu. Mm-hmm. ne ko bu ngeen bañee coow wala coow buy am suñ diggante ñun ak yéen. Mm-hmm. lii moo koy indi musul wax loolu. Mm-hmm. en mais musul wax loolu on ñu toujours ci kii musul wax loolu lan la wax ci kasu utilise répète la phrase mais mooy la répète la phrase mais mooy la Ousmane Sonko a dama bëgg nga non dama bëgg man. ma wax dama bëgg man. nga tekkil ma ko maa a déglu dama bëgg nga tekkil ma ko. non dama bëgg ma baat boobu la. mais la phrase. attends s'il vous plaît nga nga tiim tubaab non ko. waxuñu xamal ko ne ko wax yi artu ko wax yi réew

non sérieusement laa ne wax ji du nit c'est-à-dire que wax ji moom a personnel avec Ousmane Sonko. il n'est pas calme ma est-ce que man waa ji ba mu demee moom ba jàpp ne moom bu wëree télé ak plateau yi wax na Ousmane Sonko du Casamance Ousmane Sonko du am Casamance après ci moom gis nga Kande Sénégal mu leen nax. dinaa tontu gis nga Kande Kande bu duggee foofu man dama ne man temps doo ko wax. ka le bruit. temps doo ko wax. <laughs> <laughs> Kande di nga ma déglu ba pare. di ma déglu Kande di ma déglu Kande di ma déglu. Kande man maa doon nangu lu ma sunu borom Kande. man maa la laissez passer Thio da ma tos. une seconde une seconde dama ne parce que day boo waxee Sonko a dit. Kande mm-hmm. ce qu'il convient. Kande ce LGBTI. risque d'être le procès casus belli. mais ba mais laisse-moi finir man ma ma ne bàyyi ma dégg da nga may bàyyi ma risque d'être le procès le procès waaw le procès casus belli. waaw continue la phrase. eggale ko dégg nga ko doo dégg nga lu ma eggale. voilà t'as vu. non eggaleel Ousmane Sonko nee non da bëgg nga tekkil ñu ko man. c'est-à-dire que la phrase. tekkil ma ko Ousmane Sonko a dit. Mm-hmm. Mm-hmm. contrairement à ce que vous dites. non waxuma contrairement eggal li nga waxee ñoom ak tubaab yi dafa ne. waaw waaw Ousmane Sonko a dit. Mm-hmm. ce qu'il convient d'appeler les LGBTQ risquent d'être le prochain casus belli entre l'Occident et le reste du globe terrestre il n'a pas dit entre euh, l'Europe et nous du Sénégal il n'a pas dit yaa ngi dégg dafa ne entre l'Europe et le reste du globe terrestre. c'est mais dafa ne nee ñun fii Sénégal mu yokk ci mooy li wax léegi laa lay leeral nee na arrêtez de parler de l'homosexualité parce que quand vous en parlez comme vous le faites les Séné les gens qui n'en parlaient pas vont en parler et quand les gens apparaîtront ça risque de retourner contre eux et quand vous en parlez c'est en ce moment-là que vous créez des problèmes contre le monsieur Sèye. mais parce que bu wax waxu góor la mu leeral mu leer dañu leen leer non non on leer gis nga mbiru góor jigéen leer ñun waxuñu Ousmane Sonko góor jigéen la ba tey waxuñu góor la dañu ne moom moo wax ne Sénégal fii dañu fi toléré góor ñu ne ko comment est possible que yow mi waxoon ci campagne bi nga xam ne démb la matul ñetti weer mhm. que bu ñu faloo dañuy criminaliser homosexualité tey waxatoo ko criminalisation dina leen xam nga affaire nga ndaw si ñii bi yow mënoo nekk si gouvernement pendant douze ans mosoo yëkkati projet de loi bu ni mel nga dem ba léegi sa nguur jeex nga taxaw fële naan non dina dugg s'il vous plaît pas demander à ce que quand même il faut qu'on s'organise na ñu jéem a daaneel projet de loi bi à l' assemblée nationale effectivement. di dugg na de. Euh, dugg na on attend que Amy Ndiaye ñi bi déposé na yaa Cheikh Abdou Bara. <laughs> en tout cas en tout cas yéen a majorité la proposition de loi à l' assemblée nationale. dina dugg te dina ñu ñëw également sur la sortie de maître Doudou Ndoye ku ne xam na ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu politique ci wàllu droit notamment mu jàpp ne kii di le premier ministre Ousmane Sonko dafay empiéter sur euh, en tout cas entre guillemets je mets des guillemets ci li mu jàpp ne prérogative président de la République Bassirou Diomaye Faye la que dafa war a nangu kilifteef bi Mayoro nan nga gisee sorti boobu parce que bëri na sénégalais yi quand même que depuis que ce régime là est arrivé au pouvoir avec ce binôme Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñu jàpp ne Ousmane Sonko est toujours au devant de la scène di exercer di recevoir ay ambassadeurs di jël yenn décisions yi pendant que le président de la République euh, mu ngi ci ay voyages au niveau de la sous-région mu ngi waajal sa voyage en France le 20 juin nan nga gisee la sortie de maître Doudou Ndoye loolu moo wax te sénégalais yu bëri di xalaatee noonu comme quoi que Ousmane Sonko dafa bëgg a taxaw taxawaayu président. dégg nga sànq Kandé lim la ci wax. dégg naa mu naan second président numéro 2. Ousmane depuis 2014 second président. <laughs> loolu yàlla moo ko def. depuis parce que depuis 2014. Hmm. moom président lay dégg. mais am na lu mu moom. am na lu président moom aussi. Ousmane gis nga cër sunu borom moo koy joxe. waaye président man mii président lañ may wax sama commune. macha allah président. mais mais cëram jamono ji cëru premier ministre. xam nga yow da ngeen bañ nga xam ay président. gis nga ay début 2014 président daayira gis nga sëñ Thior. diwo Ousmane Sonko son excellence le président Bassirou Diomaye Faye. yàlla bu si cat dugg. parce que man damaa gis ay sénégalais xëy na. ñoom ñaar seen diggante dana mos a yàqu cest à que man yow mosoo fekk ñaar ñuy xuloo mosoo fekk ñaar ñuy werante mosoo fekk waaye jàpp kii na ko bàyyi la wala kii ne ko jàpp naa kii na ko dama bàyyi mm-hmm. nga xëy di doxee loolu parce que day déranger mosuñ am loolu ñun bi ñuy campagne dafa am lu ñu doon campagne dinaa la ko wax tey. mooy. Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay. mais nag ci ci cas précis bi nii Diomaye mooy président Sonko mooy premier ministre aussi ay weer ci ginnaaw ay weer ci ñu def distinguo aussi ay ay weer ci ginnaaw. Mhm. dafa am ñu taxawoon ne Pastef du am candidat am ñu taxawoon ne Diomaye du nekk candidat Sonko du nekk candidat mu am lu mu leen caraloon ñu utiliser benn machine mais dama ne la li ma imaam bi waxoon rek laa lay wax. Mhm. daf na ma ren waaraatuma ci koor gi ma ne ko tax mu ne ma lii ku mu waarul dara du la waar. Ousmane Sonko keroog bi mu génnee kaso dafa am kilifa gu ma woo. ma hmm. waroon dem Jolof mu ne ma Mayoro bul dem Jolof. baal ba ginnaaw timis ma toog hmm. ginnaaw timis mu message ma ne man maa ngi nii Ousmane Sonko génn ma jugee Thiaroye Azur taal suñu oto dem si kër góor gi keroog àdduna bi yëpp ñu ngi xaar boobu demaguñ ci élection ñu ngi ci biir campagne àddina bi yëpp a ngi taxaw bundu kër Sonko pourtant demuñ kër Diomaye de. Hmm. bundu kër Sonko lañ dem. àdduna bi yëpp. mais est-ce que loolu mën naa justifier rek. non le premier ministre quand même. non non mais maa ngi ñëw taxawaayu président Sénégal Ousmane Sonko moo fi gën a généreux man Sénégal ñi ma fi xam Ousmane Sonko moo fi gën a généreux. loo ci bëgg a wax. man Ousmane Sonko laa gis. moom moo sacrifié boppam depuis 2014. sëñ bi un inspecteur principal des impôts xam nga ban salaire lay am. Mhm. xam nga ne direction des impôts. ban salaire lay am xam nga impôt dafa neex. Mhm. impôt yoo xam nga dafa neex sëñ bi nga mën a taxaw yow. bëgg sam réew sa intere réew tax nga ñàkk lool waxuma la ak intérêt benn nit nag damay ñëw gis sa karo bi ñuy taxawee foofu noonu hmm. ñun ñëpp bi ñu xaar Ousmane Sonko Ousmane Sonko gisuñu ko man kenn dafa am lu ma jàngal ci moom. Hmm. dañ ñëw ba toog ba 3 heures du matin ñu toog ba si yàgg ñu ne oto Ousmane Sonko yaa ngi ne karo bi ñëwee son excellence lañ gis le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que lan kii lañ leen war a wan kii lañ war a jaay pourtant këram lañ taxawoon su fekkoon koo xam ne moom dong moo ko ñor sëñ bi de source sûre la Ousmane Sonko bu ko neexoon ñu fomm élection yi. pour mu nekkaat candidat. la preuve lépp lu ñu waroon a parce que yàgg na leen ko wax. yéen a ma tuumaal yéen a ma tilimal sama gars yi toog leen ñoo may ragaat ba mu set. ñooy dem ci plateau yoo ba mu set. léegi xam dañu wax ñu wax. Diomaye dafa yaru parce que dafa am ñoo xam ne Ousmane Sonko daf leen déranger. c'est-à-dire que la présence physique de Ousmane Sonko daf leen déranger ñaar daf leen koy wax. Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay. Jomaay mooy président Sonko mooy premier ministre. Jomaay mooy Jomaay na nekk président Sonko sa nekk député mais dafa ñaari mu la bëgg a wax en dehors de la politique. gis nga ñaar ñi seen diggante bay boo nit ñi rafet ci. c' est parce que nag mosuñ ko gis. ma wax la ñaar Ousmane Sonko li mu def ñun mosu ko def ñi dem élection député nekkoo ci liste yi ñi yàq liste bi ak seen i tappale nga sacrifié wu def campagne man tiim naa Ousmane Sonko ci campagne muy taw ci kaw keroog gars yi dañoo ñëpp dugg ci oto moom donc mu génn sëñ bi loolu ku bëggul Sénégal doo ko def. il a quand même posé un acte général. ñi génn la le fait que mu ñi génn la ci kanam ñi génn la kaso. njaboot ni mu neexee nga wan ginnaaw sa njaboot wan ginnaaw sa famille ne diw jaaral gauche ma jaar droite. jiital képp koo xam def discours ne gars yi amul tëdd amul nelaw nga sacrifier sa bopp ba kooku tey nekk président Ousmane Sonko dama naan tey. Mhm. joxoñ bi mu joxoñ son excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. amoo sens parce que bu la ko joxoon ñooñu nga gagné. loolu nag nit ku ko def. <laughs> il faut nga amul sens daal la gën a jege non man bëgg maa nekk président man bëgg maa nekk président yow yaa amul sens yow yaa bëgg yow yaa président <laughs> nag acte de générosité la. dañ ko ko war a nangul ba pare. il a parlé sept minutes sept minutes ma wax la beneen bi ci topp. j'ai chronométré sept minutes dernier point bi la sëñ <laughs> gis nga doomu aadama yi. Mm-hmm. man dama naan souvent jërul souvent nga dem di jàng alxuraan pour xam kan mooy yàlla. Hmm. da ngay xool ci li muy dogal. dama ne la nit ne ko def ko maire ñu def ko maire. Hmm. mu joxoon nit ne def ko député maay moom mooy ma ñu def mu joxoon nit ne ko def ko président. ñu def ko kooku li ma bëgg ñu xam ko mooy tey. Hmm. gudd ñu nii man gëw ma ne kilifa. ëpp na ko cër ci réew mi gëw ma ne. kilifa même président ëpp mais mais mais président moo ko cër président. président ëpp ko cër ci réew mi loolu nga bëgg wax. président képp ku yeewoo ci réew mi. mooy sa kilifa. Ousmane da ko nangu. Ousmane. dañ koy tooñ sax nan ko président mu ne bu leen ma waxati président bàyyi leen sax président parti bi seen président baa ngi nii mais mooy jëwrin yi jëwrin nag dafa am lu ñu xaar ci moom non non il faut lu ñu xaar ci moom sëñ bi débat bi dañ koy wàcc indi ko jox ko sénégalais Ousmane Sonko dafa am lu ko président sas Ousmane Sonko moo gën a sonn guddi ñu toll président parce que njaboot gaa ngi nii lañ wax mhm. mooy sàmm leen mhm. ñoom ñu ngi nii fi mu ne xamul xoolal affecté lañ leen ci plateau yi mhm. ne leen dem leen gaaw donte ñaari weer la ngeen yuuxu parce que am na patron yoo xam ne ca géej ga am nañ fa ay kër bugguñ wax joo jub am na ci ñoo xam ne fi ne ñu ngi fañ ñu ngi bañ a fay impôt bugguñ wax am na ci ñeneen ñoo xam ne fi def nañ ay wuruj ñii rapport cour des comptes bi ñii rapport OFNAC bi épinglé leen ñu ne leen dem leen gaaw ngeen yuuxu ca plateau ba wax na ceeb yokk na diw yokk na Kande sur les rapports. moo tax wax na ko barki démb nee na leen. Mhm. di noppi. Euh, s'il vous plaît s'il réew mi dinañ ko lijjanti coow lu jëru ko. defe naa leer na sur rapport président de la république ak premier ministre defe naa nit ñaa koy waxtaanee. man am nañ ci amoon ay soupçons mais dégg nga la sortie de maître Doudou Ndoye ci li mu jàpp ne noonu la Ousmane Sonko en tant que chef du gouvernement premier ministre war a taxawee vis-à-vis du président de la république ban jàngat nga am ci euh, sortie boobu. Doudou Ndoye li muy wax defe naa moom la sénégalais yu bëri di wax am na ay vis à da koy rafetlu wala da koy. non mais quand même euh, li ñu mën a wax mooy def ko recadrer en quelque sorte recadrage la mu nangu kilifteefu président la République. ok kon Doudou Wade tamit wax na la même chose. waaw man Doudou Wade laa ci dégg. Mhm. je parle de euh, Doudou Wade ok. je pense que tu parlais <laughs> laa bëgg lapsus la quoi. lapsus d'accord mhm. euh, xam nga man j'ai dit waxoon naa ko temps yàlla te dinaa ko waxaat. non wax rek ngay def kay temps yi koy wax rek. moom ngay suba di nga waxaat man sax fan gis naa ko sa waay plateau. rapidement li ñu dese ci temps bëriwul. xam ba ne je ne voudrais pas fan yii moom sax je ne suis pas dans cette. <laughs> fan yii moom sax je ne voudrais pas être leur terreur. bëriwul rapidement ma bàyyi ma wax ñu dañ ne man dama gëm ni quand bu réew demee ba am président de la république ndaw. Mhm. toute la jeunesse de ce pays là. dañ ko war a souhaiter ndam. nga lan moom looloo ma wutale ak ñoom man je positif. Ah bon? parce que suba su ma bëggaatee réew mi am aazu Bassirou Diomaye Faye bëgg naa confiance bi sénégalais yi joxoon Bassirou Diomaye Faye mu jox ma ko parce que c'est un jeune ki a qui nous a précédé et qui un bon résultat kon jamais on ne souhaitera l'échec ki nekk ci bopp réew mi parce que Sénégal bu nekkoon gaal tey wala oto ki koy dawal mooy Bassirou Diomaye Faye kon dañ koy yéene jàmm. parce que bu oto ba daanoo xamoo ko ciy mucc xamoo ko ciy des moom mooy dawal oto wu Sénégal fu mu toll tey yaa ngi dëgg mais mm-hmm. William Shakespeare dafa waxoon au seizième siècle mm-hmm. ô toi peuple malheur ô pays dont le président est un jeune nga dem ci bible catholique seen parti xaw ecclésiaste lañ ko woowee xaw ñu ne fa malheur à toi prince qui se réveille tôt le matin et qui mange bien ensuite le soir il s'adonne au verbiage mhm. mu ne ô toi pays honneur à trois dont les, dont les princes sont des adultes des sages qui le matin ils mangent peu et le soir ils réfléchissent sur comment mange marche le pays mhm. kon ñii dañoo moytu gone ci réew ñii ñu jàpp ne réew ay mag ñoo ko war a yor te man ma jàpp ne ndaw ak mag ñoo yem l'essentiel mooy na nga mën a nanga am compétence après nga jub mais loolu yëpp dinañ ci ñëw mais dañ ne parce que jub du wax rek jëf la nit ñi gis résultat la jub du projection jub jëf la bu nit ñi gis te dafa goo leen ba léegi dañoo nekk ci projection mm-hmm. yaa ngi dëgg di nga ma doo ma bàyyi la. parce que tu me coupes non coor tu me coupes. tu me coupes ne. rapidement nga daanelee foofu. le premier sénégalais il minutes de dix minutes la wax trois minutes laa wax nga bëgg maa dàq. on dirait que c'est ton ami là et tu tu dañ ne dañ ne maintenant ku Ousmane Sénégal Bassirou Diomaye Faye bu amee ku mu war a njëkkee moytu bu mu gën mu gën moytu ci réew mi fii muy Ousmane Sonko. ah man maa ko wax. a moytu. Euh, s'il vous plaît parce que Ousmane Sonko. da nga coor parce que temps bi euh, parle tu me laisses pas me couper. li nga may dagg nii soo non boo ma daggoon ba pare yaa ngi dégg a moytu Ousmane Sonko doit jouer son rôle de premier ministre. Mhm. Bassirou Diomaye doit se refuser les avions liggéey ci réew mi sinon demain Quand on rendra compte, ce n'est pas Bassirou Diomaye qui rendra compte, Ousmane Sonko qui rendra compte, c'est le président élu de tous les Sénégalais qui rendra compte au soir du 29 février. bu ko on le temps nous jugera bu ko xamee le temps nous jugera et le doyen Doudou Ndoye je pense que c'est un être tellement averti qui mhm. connaît comment marche le Doudou Wade comment marche un pays il ne devrait pas dire les choses comme ça sur la légèreté c'est parce qu'il y a des mhm. actes qui ont été posés mhm. xam nañ ne Ousmane Sonko bu sañoon moom rek la ñuy tudd oh. Bassirou Diomaye Faye ñu bàyyi tukki yi muy def faute ci wolof muy def faute ci français di ko merci merci beaucoup merci beaucoup pour la promptitude mu bàyyi la nga tàggatoo rek un mot. merci maa lay jaajëfal c'est vrai que euh, sa émission bi t'as invité ton ami <laughs> et tu lui as donné beaucoup plus de parole que ah qu'à moi et je pense qu'on l'aurait fait là <laughs> tu parles dix minutes xam ñun wax nañ bëgg a wax mm. gis nga réew mi <laughs> réew mi fi may tëjee euh, l'autre un pays ne se gouverne mm-hmm. par de l'argent récupéré entre les voleurs. Ah bon? parce que loolu mënul wàññi. mooy loolu mënul wàññi ceeb. merci wàññi ceeb bi c'est la vision c'est de la pertinence c'est de l'efficacité. bàyyi nga tàggatoo ñu ngi lay gërëm. di gërëm waa Sénégal 7. di rafetlu seen liggéey seen sa prof ak sa professionnalisme. di encourager sama waa ne ko nag macha allah. maa ngi di dana yàgg du yàgg 5 la. mën naa nekk dix ans na nekk vingt ans waaw Massa yaa ngi def liggéey métti nag waaw je t'encourage merci ma di leen di sant man tamit di leen di gërëm vraiment di wax ne fii la ñu ndar keppee émission bi tey mu nekkoon Cheikh Ahmed Tidiane Kandé président du mouvement Ndiadène Kébé nekk également responsable de la coalition benn Bokk Yaakaar ñu tuddoon ànd ak également Mayoro Ndaw Mayoro Ndaw di membre de la coalition Diomaye nekk jeune activiste mbokk yi maa ngi leen di jox ah, dig émission fii ci Sénégal 7 jaa <laughs>